إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk jullit yi gannaaw ba ñu santee suñu boroom subhanahu wa taala ñaan ko mu julli ca yonentam ba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di dénk ragal yàlla képp ku ragal yàlla day dana ko génne ci ay xaqatam dana ko wërsëgal kum ko foogewul gannaaw loolu mbokk julit bokk na li ab jaam war a sant yàlla mooy yàlla di ko dajaleeg ay jamono yoo xam ne da cay ful ay tuyaabaam ngiree mu mën a bokk ci ñiy jëkkante jëm ca ajjana ja nga xam ne nii moom la yàlla waajal jaamam yi mu gërëm yàlla yàlla boole ñu ca bokk na ci jamono yooyu li nga xam ni ñoo ngi koy siin ca mooy weeru tabaski weeru tabaski fukki fan ya nga xam ne moo ko ubbi borom xam-xam yi nee nañ la suñu borom di waat wal fajri wa layaalin ash fukki guddi yooyee borom bi di waat ma ngi ca jublu fukki guddi yi jëkk ya ubbi la nga xame ne nii mooy tabaski mu yóbbaale ay bëccëgam mbokk loolu la ñuy gisit suñu borom mi ngi koy wax ba mu ko waxee suñu maam Ibrahima na ko wooteel ci ak Makka nit ñi dañ di dikkal ci bis yu ñu xam di ci tudd yàlla bis yu ñu xam yooyu muy ayaama maalumaat tamit mooy fukki fan yu ubbi tabaski suñu borom yàlla subhanahu wa taala moo woote ak makka xam ne ne it ay jaamam yëpp mënuñoo aji même bu ñu ajee it mënuñu at mu nekk ñu aji looloo tax jaam yi ajiwul makka mu ubbil leen buntub jaamu yàlla boo xam ne buñ ca góorgóorloo daan mën a am tuyaa ba ju toll ne ñawaa makka aji am ca loolu mbokk mooy fukki fan yii ñuy séentu looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngiree xolu jullit ñee aju ca makka ak bëgg yoon bu mel ne ba ñu am mu ñu daan wax bu ñu séentoo ba seen wéeru tabaski kenn ci yéen ko jàpp ne nar naa rey xar ci bisu fukkeen ba bu mu watati boppam bu mu daggati lenn ci karawam bu mu lellee it ay weyam lu dul ne dafa rey xaram ba pare muy lënkaloo bi nga xam ne jul ñi nekk ci penku jant ak sowu jant ñi ngi koy lënkaloo jaami yàlla ya armal ca makka nga xam ne yooyu ñu wax yépp day araam ci ñu def ko mbokk fukki fan yooyee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog naa ci sahabaam ba mu jimu ne leen ay fan day mi ngi nii di fukki fan yu ubbi tabaski amul benn jaamu yàlla bu mën a defal yàlla beneen jëf bu mu gërëm bu fukki fan yi paase loolee amul benn jëf bu mën a méngoo jëf bañ jëfal yàlla ci fukki yooyu sahaaba yi na ko ah yu mu yàlla yónni même ñiy jihaad ci yoonu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne leen même ñi génnoon di jihaad ci yoonu yàlla xanaa lu dul koo xam ne day ba muy dem daa yóbbaale bakkanam ak alalam jihaad na ba alalam jeex jihaad na ba bakkanam daawlu ko waaye bu dul kii day jëf bu mu mënoon a def mënu la dab kay jëf lu baax te la nga xam ni mooy fukki fan yi mbokk fukki fan yooyu dañuy gis ne suñu borom yàlla ci la dëxëñ lii nga xam ne mooy at makka ci la dëxëñ lii di bisu arafa di bis bu mag bu suñu borom di wàcc ci asamaan yi di wan malaaka yi jaamam ya nga xam ne ñoo daja arafa loolee ca la yàlla dëxëñ la nga xamee ne mooy ay jaamu yàlla yu mag mu war ci jaam mboolim dundam da koo war a jegleel jéem a jege boroomam waaye nag rawatina ci jamono yi nga xam ne suñu borom daa woote ne loo ma defal danaa du ko fulal loolee ci la doomu aadama bi war a gën a góorgóorlu te mboolem ñetti téeméer ak nangami at mi ëmb yépp amu ci yenn fan yu yemek fukki fan yi nga xam ne moom la ñuy séentu dimanche bii di ñëw ngal la waay mbokk julit nuñ ko war a teeroo nuñ ko war a taxawe am na ci lu jege fukki bind ak ñaar yoo xam ne ngal la waay bàyyi ci xel bind bu njëkk ba mooy jaami yàlla ji da ngaa war a sant bu la yàlla tombelee xiiwal yu demee noonu ndax kat suñu borom yàlla dana la ci fuyal loo xam ne mënoon na la ngay def ci weer ci beneen yeneen i fan nga def ko ci benn fan ci fan yii rek yàlla fulal la ko loolu nag ak cant la boo xam ne borom bi nee na fii yéen a ngi may sant ma leen di dolli waaye ñaareel ba mooy ñu góorgóorlu yee sal ak tuub julit fu mu mën a dol toll day tuub waaye nag yee sal ak tuub ci bàyyi lépp loo xam ne ay jëf la woon ak i wax yu jaaduwul nga dogu ci bàyyi ko ci fukki fan yii ñu jëm suñu borom yàlla moo lënkale tuub ak def lu baax mu ne fa ama man taaba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna min al muflihin mu ne ñi nga xam ne dañoo tuub boole ko gëm ca def lu baax ñii de mën na am ñu bokk ca ña texe borom bi waxaat ne ba tey وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى من لدينا ننقل بجيجل كيف كو خمنا داتو بولكو جفل باخ تفخجا لولي كنا ورشي باي خل ñetteelu mbir yi mbokk julit bokk na ci góor góor lu ci loo xam ci jëf lu baax jëf yu baax yooyee na doon loolu ay farata la ya nga xam wala mu doon ay sunna ya nga xam na doon loolee mbokk julit da ngay góor-góorlu ci tasaare ab nuyoo defaray diggante seeti ñi feebar fajal nit ñi seen aajo digle lu baax teru lu bon ak yëf ya lum mën a doon nga bañ caa xeeb dara suñu borom subhanahu wa taala nee na ab yonentam mu jotti li xeetam képp ko noonoog sama waay ku mel noonu day man la déclaré guerre sama jaam nag du dañ di ma jéem a jege ba ma bëgg ko waaye jaam be jege wu ma lu ma gënal farata yi ma gàll ci moom julli azaka koor aj ila axiri waaye mu ne gannaaw farata yi jaam bi du dañ di ma jéem a jege ci naafila ba ma bëgg ko su ma ko bëggee maay doon ay noppam ca mooy dootul nangoo toog di déglu lu dul lu neex yàlla maay doon ay bëtam dootul nangoo toog di seetaan lu dul lu neex yàlla maay doon ay loxoom du nangoo jël wala muy joxe lu dul fa neex yàlla maay doon ay tànkam du yëkkate ay tànkam di koy jéego di jëm fenn fudul fu neex yàlla ku mel nii day su ma ñaanee dinaa ko may su sakkoo itamit ma xettili ko danaa ko xettili yàlla yàlla boole ñu ci jaam yooyee donte ne mbokk julit jëf yu baax day lu yaatu la waaye bokk na la ca gën a am solo la nga xam ne mooy xoolaat julli gi ngay julli cër bi nga am ci lislaam mooy cër bi nga am ci julli julli googu nga xam ne ëmb na ay jaamu yàlla yu bari njàngum alquran ma zikrullah bakk yàlla màggal yàlla toroxlul yàlla ila axiri ñu góorgóorlu baril julli yooyee suñu kentaleel kattan baril tegtal ca lu ñu man ci naafila waaye gannaaw loolu it mbokk fukki fan yi nañu xam ne fani woor la ndax yeneen ci bi alayhi salaam nee na kenn defalul yàlla gannaaw loolu lu mu gën a bëgg bëgg ci fan yi loolu moo tax ba lenn ci ay soxnaam nettali nañu ne juróom ñeenti fan yépp yeneen ci bi daana ko woor ndax bisu fukkeel ba moom dafa xaram ñu woor ko muy bisu tabaski lenn ci ay soxnaam nee nañu yonent bi alayhi salaam day daana woor bisu ashura juróom-ñeenti fan yu ubbi ca tabaski weer wu nekk daana ca woor ñetti fan altine ba ca jëkk ak ñaari alxames xadis bii da ngay gis ne ku mel ne albani nee na xadis bu wér la bu nee ne yow mënuloo woor juróom-ñeenti fan yépp cay waay góor góorlu nga woor ca ñetti fan amul weer woy dugg woor ca ñetti fan lu dul mel ne ne woor nga weer wa yépp waaye ngal la waaye même bu dee ne ay mbir am na it ba mënoo woor ñetti fan bisu juróom ñeenteel ba moom muy arafa bu la ko dara tee woor lu dul la nga xam ne doon na la tee woor bisu weeru koor ndax la ko yeneen ci daal islam wax ci ay ngëneel te yàlla mën na dogal insha allah suñu xudda bii di ñëw lépp aju ci ngëneelu bis bu màgg boobu di bisu arafa ay yow bokk julit xamal ne bokk na ci ngëneel yooyu ba tey mooy li nga xamee ni nii moom mooy zikrullah jaamu yàlla ba yomb googu borom alal yaag baadoola ya góor ak jigéen mag ak ndaw ñi feebar ak ñi wér ñépp bokk ca ku mel noonu mbokk ëpp naa sàggane ibnu omar day nee na yeneen ci bi alayhi salatu wasalaam bi mu ñu waxee ngënee lu fukki fan yi daanañu wax ne bari leen ci waay di wax lii nga xam ne mooy subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah ak allahu akbar loolee da ngay gis ne moom la borom bi subhanahu wa taala di wax ñu màggal yàlla kabbaral yàlla loolu bu ñu delloo woon ca jamonoy sahaaba ya ñoom day dañ ko doon wax di ko biral ku mel ne abi hurayra ak ibnu omar daanañ dem ca marché ya di kabbar ngiree fàttali nit ñi kabbar yooyee am ca fukki fan ya ndax fukki fan yépp fani zikr la doonte ne nag gën a gën a feddilu ko bu bisu arafa ñëwee ak bisu tabaski ak ñetti fan ya ca topp muy ayaaman maadudat amma ayaaman maalumat loolu mooy fukki fan yi tabaski yépp nañ cay bàtt yàlla di ko ca màggal bari na bokk na ba ca gën a siiw allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd waaye même bu doon foo toll sa gannaaw julli fooy dugg wala ngay génn nga bari woon di wax allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah mbokk noonu da ngay gis ne yaa ngi def jaamu yàlla gu màgg googee mbokk fukki fan yi di ñëw ngalla waay nañ ci góorgóorlu suñu kentaleel kattan ci téere bu yàlla bi suñu borom yàlla day nee na ñi nga xam ne ñooy jàng sama téere bi boo leen taxawal julli di dépense ci la ma leen wërsëgal ñi ngi yaakaar commerce boo xam ne pertement amu ca yàlla dana leen matalal seeni pay dolli leen ci ay ngëneelam moom mooy kiy jéggalaate moom mooy kiy santaane yeneen ci daal isalaam nee na jëf boo def moo gën a màgg jëf bu keneen defoon ak lu màgg màgg ci yeneen i bis ca yeneen ci boobu moo ñu wax ne heure booy jàng téerab yàlla bi xarf boo jàng am nga tuyaaba tuyaaba bu la ñu ful ko fukki yoon kon léegi jëf mooy lan mooy xarf boobu jëf la ci jëf yi waa ji jàngoon fatiha kese jëf na téeméeri jëf ak fukki jëf ak ñetti jëf muy cent treize ci ay xarf yoo xam ne wax na ko bu nekk jëfu boppam la bu nekk daan ko ko fulal fukki yoon muy mille cent trente ci ay tuyaaba ci fatiha kese kon loo mën ci baril jàngum alquran baril ko même bu doon ay qul huwa allahu ahad ngay répété téeméer ñetti téeméer yoo xam bari lan foo toll di jàng téereb yàlla bi ci fukki fan yi waaye bari la it di génn ay sarax suñu borom ñi ngi méngale ñay jàng téereb yàlla ba ba pare di ca boole di génnay sarax yatluuna kitaab allah wa aqaamu alsala wa anfaqu mimma razaqnahum te xam ni sarax bi nga génnee ci fukki fan yi day bu doon ñaar fukk raw na ñaari téeméer ya nga génne woon ci yeneen bis yu dul fukki fan yooyee gannaaw loolu mbokk julit xamal ne bokk na ci loolu ba tey nga bari lool la nga xam ne mooy ab ñaan mbokk ñaan doomu aadama yi dañ ca rawante doomu aadama mën na laa raw lool ci ay jëfam benn ñaan rek nga daw nga dab ko ca ba raw ko ca looloo tax lu ñu mën nañuy ñaanal suñu bopp lu ñu mën nañuy ñaanal suñu njaboot suñu borom nee na ñaan leen ma ma may leen ku réy réylu sama jaamu day kookee da ngay gis ne dañuy tabbi sawara kon ñu bari di ñaan te xamal ne bokk na ñaan ya gën a màgg ñaanal suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te muy baril di julli ci moom lool foo mën a toll gannaaw zikr ya ngay def gannawaay dee ca boole lool allahuma salli ala muhammadin wa alihi wa sallim di baril di julli ci moom ak noo mën a jullee ci moom xamal na loolu day ci luy yëkkati say daraja la ca jëf ya gën a màgg ya yàlla gën a gërëm ca la bokk ngallawaay mbokk julit xam leen ba tey ne suñu borom day ba muy waat guddi yi la tudd doonte ne ne bokk na ci langue yu bëri bu ñu waxee bis dañ cay boole guddi ak bëccëg bu ñu waxee guddi dañ cay boole guddi ak bëccëg masalan da ngay dégg benn waay bu naan wallahi am na guddi yoo xam ne romb naa ko ci gannaaw dund naa ay coono jublu wa ca guddi ya ma ngi ci jublu jamono ba loolu moo taxit suñu borom bi mu naan wala yaa lil ashir la ko yonent bi firee ak borom xam-xam ya mooy ña ngi ci jublu la nga xam ne muy bëccëg ya waaye na bëccëg ya amee ngëneel it loolu la yóbbaale ngëneel ya ci guddi ya looloo tax lu bari ci borom yi xam-xam heure boo fukki guddi yi masaan am dañ daan taxaw lu baree bari ca guddi ga di ko naasi la di ko màggal ngir tudd goo ko yàlla tudd loolu nga la waay yow min fekkoon ci xiyaamu layli falilahi alhamdu loo ca mën a yokk nga yokk ko ca waaye yooyu mi nga xam ne nga la waay daaw ko def fukki guddi yi baril di yewu di julli guddi te xam ne lu lay gën a jegeel sa borom loolu ci la bokk loolu kon mbokk mi ngi nii doon loo xam ne nii tiim nañu muy jaamu yàlla gu bees bu ñu sunu borom yàlla subhanahu wa taala ubbil waa makka dépense nañ seeni alal wàcc nañ seeni lal wan gannaaw seenu njaboot jëm ci dëkk boo xam ne xamuñu ko jaxasoox ñu ñu xamul ngir jublu ci ngërëmal yàlla nga la waay yow mi toog sa kër profitoor yi ci fukki fan yi yépp nga def ko fukki fan yoo xam ne da nga cay jublu jëm ci sa borom nga xam ne boo yëggul ca kaaba ga it yegg nga ci sa ngërëmal borom jalla wa ala loolee kon ñi ngi koy ñaan yàlla subhanahu wa taala moom mi diglu lu baax ca xam lu baax ca yombal lu baax yal nañu yàlla yombalal bépp jëf boo xam ne ngërëmam da caa nekk yal na yàlla dox suñu digganteeg bépp jëf boo xam ne meram da caa nekk ay yéen mbokk julit yi ñu ngi nekk di dund jamono boo xam ne bu tiis la ñeel ko xam te dëkk ndakaaru suñu borom yàlla subhanahu wa taala day ay digam du ko wuute su ko wuutee su su defee su deful ay xéewalam rek ci doomu aadama yi la yéen ñi dëkk ndakaaru xam ngeen suñu borom yàlla bi ñu seetaan yónni wu ñu am ndox borom bi subhanahu wa taala daa bëgg pour ñu tuub toroxlu dellu ci moom su ko defee képp kenn ci ñun ngal la waay ne yëg ne taw bi wàccul man responsable laa ca góorgóorluwaat xoolaat boppam tuubaat delluwaat ci borom bi subhanahu wa taala doonte ne borom boobu ni mu bëggee ñu tub dellu ci moom noonu it la bëggee ñu koy ñaan su ko defee ay yàlla suñu borom ñu ngi lay ñaan nga yónnee ñu taw bu barkeel ci say ngëneel ak sa yërmande yàlla yàlla boo ñu xañ ci bakkaar yi yi nga xam ne mooy jóge ci ñun yàlla yàlla subhanahu wa taala nandal ñu ci yërmandeem ak ngëneelam yàlla bu ñu yàlla toppe bakkaar yi nga xam ne mooy jóge ci ñun اللهم ربنا أرسل علينا السماء مدرارا برحمتك يا أرحم الراحمين يلا يلا سبحانه وتعالى جيجل ني سي يرمني يلا يلا واتي جام سونو مبولي مي ريو يلا كو واتي سي مبولي مي ريو جريت ني يلا يلا سبحانه وتعالى ديفال مي عافية في الدنيا والآخرة مبولي سونو مجاج ييغا خامنا ньо جيم سي نيك بو تيد با يلا يلا يوبالال لين يلا يلا باركيلال لين mboole mu tiyaaba yu ñu fa jëlee yal na yàlla boole ko julit ñi ñëpp gannaaw ba it ñu ngi jagleel ñaanit sunu soxna yi nga xam ne ñoo fi daje toujours ak dëkk toujours di laabal néegum yàlla bi yàlla yàlla laabal leen laabal sunu njaboot képp ko dugg ci jàkk ji yàlla yàlla dugal ko ci yërmaane ak ngëneelam yàlla mi ñu boole sunu jàkk ji yàlla ñu boole ci firdawsi ala اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين